waaw ngeen ne waaw waaw waaw waaw salaamaaleykum mais namm naa leen démb ci guddi laa toog ay trois heures du matin benn journaliste bu ñu naan Babacar Fall woo ma téléphone ma ne dar décroché mu ne ma du wengal ma ne ko mbaay la mu ne ma dama am lu ma la bëgg a wax nga yow yóbbante ma ko askan wi parce que mënu maa taxaw fu nekk wax te am na ñoo xam ne mën nañu taxaw fu ne wax ma ne ko lu xew mu ne ma Barthélémy Dias dafa yàq lu mel ne xemee li nga xam ne mooy groupe Futurs Médias ma bëgg nag yóbbante la kaddu gi bul ci changé dara bu ci yokk bul ko neexal bul ko oyofal niñ la ko yàkkalee na nga ko jottalee noonu ma ne ko man man man man man maay géwélu Sénégal wengal mbaay man wengal mbaay laa comme que dëkk bi léegi ngénte yi ci clinique dañ koy defee dëj yi léegi dañuy def levée du corps fa dañuy defee yëpp maanaam bu ñu yëkkatee corps bi ba pare lépp fa dañ koy yemale amatul sarax ñetti fan juróom-ñetti fan amatul léegi yaa may dégg géer yi dañoo toog seen xaalis téye ko kon géwél yi léegi lu ci ëpp te xam ne ginnaaw yoon yonent bi seen ay géer ñoo la doon teral ma daa day def li nga xam ne mooy communication payante ku am sa soxla wax ma ko ma daa da koy askan bi dégg ko te dina faju Babacar Fall nee na ma keroog émission faram fàcce bi nga xam ne moom la Pape Ngagne Ndiaye doon def bu doon moom moo ko defoon keroog loxo dana dar gémmiñ ndax am na wax yoo xam ne bu ko Barthélémy yëkkatee teg ko ci der gaa yi moom dana yëkkati wax ju na a ñagas loolu teg ko ci kawam parce que nee na lu mat deux cent diggante 2012 ba fi nga xam ne mooy 2022 diggante 2006 2018 ba 2022 diggante 2020 ba 2022 nee na mënuñu compter émission yi nga xam ne Barthélémy Dias def na ko def na fu mot 37 émission yoo xam ne dafay ñëw ànd ak xadar ñu daal di koy dalal te du wax dara duñ ko wax dara waaye nag wax dëgg yàlla jot na na pour ñu arrêté Babacar Fall nee na bu fekkee ne ñii liggéey fii ci tele bi ak ci rajo bi ay góor nañu ak ña nekk ci observateur de l'observateur ay góor nañu dañoo am njaboot am baay am doom dootuñu nangu kenn yëkkati seen der di leen ko teg di leen tuutel wala ñu leen toroxal nee na nag bu fekkee ne Barthélemy Diaz ñeme na am fit na ñoo mu jël ko émission mu wax li mu waxoon nee na bu boobaa nañu xam ne ne studio ba dana doon arène ndax moom waala waala bi mu doon kenn du ko jam naa ni waaw kuy sa patron Youssou Ndour mooy PCA ku mu ànd ak Macky Sall loolu dafa tax nag ñu ne par la force ñu fay liggéey dañu ànd ak Macky Sall loolu la ma Barthélémy loolu la ma Babacar Fall yónnee waaye nag du yomb de ndax ñaari ndaw lañu Bart xale la Babacar xale la bat sa gën a ndëgam daa dee jël gën gi jël li nga xam ne mooy mooy mooy sabaram teg Babacar Fall jël sabar ba teg ñu war a jàkkaarloo ñoom ñaar. ñaar ñoo mun a am ànd liggéey war a tàqali ko waaye ñoom nee nañu yoon bi ñu jël ak éditorial bi ñu jël dara du tax ñu teggi ko nee na ni ñoom du ñu menacé ket ku leen menacé tamit dañ taxaw defante ak yow bu mu sa sàpp waa kan mooy wax Babacar nu mu sant Fall gune la moo Barthélémy ñoo bokk génération tolloo doole tolloo taxawaay waaye ñoom combat bu amee seen diggante nan la nar a demee combat de la démocratie et liberté d'expression lay doon maanaam sañ-sañu wax ak libre liberté d'expression Pape Ngagne Ndiaye doomu Jolof ba ànd ak tey gérer heure am nee na bu doon moom li Pape Ngagne na du ko nangu dana ko defanteeg moom ba mu saf sap mu dee bu dee en direct la kenn du dagg émission bi nee na nag jot na nag ñu taxaw ñoom journalistes yi rawatina ñu nekkee RFM ak l'Observateur seen taxawaay ci biir communication di wax li ñu leen di duut baaram bari na te il faut que ça arrête loolu la ma Babacar yónni de ne naa ko wax bi ma déggee kàddu gi na mu wax ko ba ñu ànd juboo ci li nga xam ne moom laa war a wax ak moom wax ko kook askan wi nee naa ko fu mu ne ni li ci war a am mooy déglu ñaar ñëpp la nga wax ak la Bart wax buñ ko boolee xool fu dëgg ba féete ñu daal day àtte nag le Sénégal mooy àtte. waaw waaw. ngeen ne. waaw. ngeen waaw. ñaar ñoo am Sénégal. faw ji rek la ko. yóbbante Babacar Fall bu jeexee sama yóbbante personnel mooy ñëw. maa leen koy wax barki démb li xew assemblée nationale neexuma wax fa dëgg yàlla jooytu naa ko fu ne jigéenu Sénégal taaram ci boppam mu ngi nekk sol lu jot garam bu lu ko gën ndoket lu ko gën muur say cër sellal ko ba ku la gis naw la bu la yàlla bindee nenn bind yi sant yàlla la waaye wormal ko man alaaji wengal mbaay su ma leen waree sama soxna da leen du dëgg ba ma koy tànn tànn ma ko ci ay ci ay awra ci ni mu mel dama ko tànn rek ci moom ni ko yàlla bindee te fu mu taxaw da nga naan kii du jabaru Wengal Mbaay waay séeri kaay madame Wengal Mbaay ngi nii madame Wengal Mbaay ngi xam nga ne lii bu fekkee ne da ko sol dem assemblée nationale danga dem dikk wote ñëw toog te kenn du la xool benn day yiiw ñaareel ba colin ba sot ndax amul dara loo xam ne dara tax sa xel ñaaw jigéen bu nekkee ci assemblée wala bërëb boo xam ne ñëpp koy bàyyi bët day sol loo xam ne ku gis warmal ko ndax assemblée nationale mooy vitrine Sénégal soxna Wengal Mbaye mii nga xam ne mooy sama soxna su ma ànd ak moom du ma sëgg du ma rus waaye bu fekkee da ngaa jël dangal ko ba mu dang seere ko ba seere foo dem ñu okk la loolu li koy waral mooy ñàkk ñàkk bàyyi sa bopp waaye séeri nga ne lan nga ne